waaw maa ngi leen di fay yéen tamit euh, di leen nuyu di leen siyaare bu baax a baax ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci Seydina Mouhamed sama sang yi ñu ngi sant suñu ay waajur bu baax a baax di ñaanal euh, sëñ euh, Muntaxa Basir yàlla yàggal ko fi di ko ñaanal kilifa diine yëpp euh, di leen nuyu yéen tamit nag di am kontaante ak mbégte bu baax ñëw teewee bisu sëñ Baara yàlla def na ni doomam bu mu am ñëw nañ fekk tuddam moom raq la nag si man nekk nit ku baax Euh, nekk euh, nit ku yaru nit ku am diine nit ku am taalibe nit ku am kóllëre nag euh, lii nag du dara nattu la rek ndax jàmbaar rek lu yu mel nii di dal mais dañ koy ñaanal yàlla rek moo génn sa ak jàmm ak salaam ndax fa mu nekk gàcce bàyyiwu ko fa deful loo xam ni dañ naan da ko kenn da koy dégg dar sa gémmiñ mais lu yàlla tudd si jëwu doomu aadama ala kulli dafay am mais ñu ñaan yàlla rek mu nekk lu gën si moom di ko ñaanal ña fa nekk ñëpp nag yàlla indiwaat leen ak jàmm ak salaam ñun ñëpp ñu nekk si jàmm. waaw mais sant yàlla rek xam nga jaam dafay nangu natt te yàlla ki mu bëgg rek lay teg natt ndax tey jii mënoon nañoo ñëw ñu ni euh, ay yow sëñ Baara de barki démb la fi bàyyeekoo. ñaata nit ñoo fiy jóge nekk ay xale yu ndaw bàyyi sëñ kër mais soo ko xoolee foofu rek dara du la metti te doomu aadama da ngay nangu natt mais kontaan rek comme ni ma koy wax yàlla lu mu la teg rek da nga koy euh, da koy da nga koy bégee da nga ko ci sant tamit bu baax a baax te xam ni bànneex boo gis ci ginnaaw ba naqar boo gis sa ginnaaw ba bànneex moo ca topp mais di ñaanal soxnaam su baax euh, Kati euh, mu nekk soxna su baax nekk suñu jabar man ak faatu njaay boo ñëwee si kër gi dalay fonk dalay toppatoo boo gisul sëñ Baara sax boo yemee si kat yi da ngay da ngay doyal loolu moo tax euh, ñun kat rek lañ siy ñeewantal mais sëñ Baara moom dañ naan sant yàlla la rek waaw bi sëñ tuubaa moom ñu téye ko moom dara nekku si téye nag moom li si ñaaw mooy ñu téye la ci ak yan anam lañ la téye waaye téye bii mu du téye dara dañ koy ñaanal yàlla rek mu génn si ak jàmm ak salaam di ñaanal ñi ci nekk ñëpp tamit euh, yàlla jàppale leen ba ñu ñibbi si waat seen biir kër te kenn bañ faa dellooti nag. teew xam euh, euh, waaw waaw bee xam nga du neex nag ndax kati xale la te xam nga moom moo borom këram yàlla dafa defoon ñoom ñaar dañoo taqaloo woon. foo gis kii di nga gis kasa des ndax bi si doom ji soxna may mi rek bi ñu fi ñëwee boo leen gisee ni ñuy toogee ni ñuy waxtaanee xam nga bu sañoon tey jii mu nekk fi mais nag doomu aadama su bëggee noppaliku rek dafay nangu dogal te kat yi euh, nit bu dëgër la. et puis nit bu xam àdduna la daal te xam naa ni mu ngi koy dékku tey ñaanal boroom këram moom bu baax a baax loolu xam nañ ko si moom waaw. mais xam jigéen mhm. euh, euh, euh, nga nga àdduna soo bëggee noppalu rek da ngay delloo lépp suñu boroom ndax nit ñaa ngi fii am doom seen papa génn àdduna. nit ñaan fi am doom sëñ waa sëñ papa nekk bitim réew xam nga nit ñaa ngi fi am doom sëñ waajur yi nekk ca hôpital ba kon tey jii bu la yàlla tegee natt nga xam ne mu ngi si jàmm ak salaam mais da koy sant suñu borom rek àdduna soo bëggee noppalu rek da sant suñu borom te lu mu la jox rek nga xam ne yàlla ko jox waaw mais boo ko nangoo waaw balaa euh, euh, ñoom ñoo ñàkk seen bakkan quand même nga nekk femme d'affaires ñu ñu xàmmee la ci bu baax a baax tey boo amoon looy sàdd ci ci ay dëkk bi ak ñu jafe mu metti ma lool ndax doom dafa metti dafa sax dafa sax si xol te ku nekk boo soñoon boo juree doom mu teral la képp koo gis muy muy muy ñaan yàlla may ko njaboot day ñaan yàlla suba njaboot tam euh, noppal ko ku nekk rek boo ko xoolee ci sa bopp rek dina metti lii ñu koy def nañ xool ci seen njaboot bu baax a baax nañ xool ci seen njaboot bu baax a baax ndax man dama dëkk Pikine am ci ay njaboot yu bari yu ma xam ñoo xam ni dañ see jógee rawatina ginnaaw raay ga ma juddoo may wax àdduna du añ du reer waaye lu jër a sédd waaw may wax rek ñi ci nekk nañ bàyyi seen xel bu baax a baax doom doom rek la te doom yëpp juróom-ñeenti weer lañ ëmb benn fan ba bëgg a dikk rey sa njaay Euh, euh, lu bon moom ma jur ko ak ma bañ koo jur laa ci yam duma ko mës a nangul ci kenn lu bon baaxul te nit ku nekk danga nga war a diiñ danga war a gëm sa bopp am gore ñàkk gore doomu aadama loolu lay ak ku mënti doon lu bon moom ku koy def ànduma ci ak yow te duma ci mës a ànd ak yow te lu ci waay góobee nag na ko gar ndax kenn du bay euh, kaani di wit euh, suukar mënul nekk lu waaye di def rek na ko xool lu waay di def rek na ko xool tey bis la suba bis la nañ bàyyi seen xel bu baax a baax xaalis dañ koy ñaq dañ koy liggéey pour jariñu mais kenn warul doomu rey lor doomu aadama pour sa bëgg-bëgg bopp ak ku la ko mën a wax jox ko wax ko doomam kon ñoom nañ delloo siwaat seen xel te xam ne ñoo bokk réew mi ku fi rey sa raq nga rey wala sa mag nga rey nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te ñu moytu waaw ndax loo gis sa àdduna dafay jeex dara continuer wut. ko joué ci seen ay ko xam nga buñ koy wax tay ji rek euh, supporter yi ñoo tax ndax euh, ñun promoteur yi ñuy tëgg xam nañ ci dara ndax suñ la tëggalee soo amul ay supporter te bëree di nga yéex a bëree waat kon yaakaar na mbër bu nekk supporter moy sa patron té supporter yi fuñu jëm rek fa la mbër bi war a jëm ndax loolu moy dëgg ndax tay buñ la dé tudd ba la ñuy wax yow yaay kii ak yow yaay kaa supporters yi ci ginnaaw ndax ñu dañoo jaar ci supporter mbër daj ci lu nekk kon yaakaar naa ni euh, li la tax a doon li nga doon da nga war a fonk li tax a doon li nga doon da kaa war a fonk bu la àdduna jëy mukk ba nga fàtte démb ndax tey bis la te suba bis la loolu rek laa am lu ma leen di conseiller waaw xamal ni daal ñoom moom ñu seen bopp niki nag soo moom sa bopp fi nga teg sa tànk danga koy xam bu baax a baax waaw merci beaucoup dugal ngeen ñu ci métti na waaye aka woyof ci lépp ci ndaw see lépp ci ndaw see la kati mii boo gisee ñëwunu boo gisee ñëwunu yaabantewul yaabantewul suñu ko wooyee suñu ko wooyee lu mu gën a wooyee fe rek lu mu gën a wooyee noonu la koy wooyee noonu la koy defee noonu la wooyee fe it nag noonu la wooyee fe li mu wax rek li mu wax rek ab jaam daa mënta ñàkkub nattu ndax ñu baax ñu nu jiitu ndax ñu baax ñu nu jiitu am na ñum nattu am na ñum nattu waaye nag tey la dàq waaye tey la dàq mooy bu génnee bu génnee lay dàq lay dàq ak Sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Tuubaa jërë ngeen ko liggéeyam daal barke bàyyam wala fam ne te soxnakat yi li muy xaar ci atu Cheikh Bara bi yàlla na ko fi am waaw yaayam day loolu liggéey bi mu liggéeyal mm-hmm. uh-huh. mu ne naam ñu fekke ko man may jabaar Cheikh Bara uh-huh. ya lu mu am yàlla na mbir mi woyof a woyof mm-hmm. te nag tëngee gii mu ne xam naa ne bëgg na ko ndax damaa wàcc démb ci arabe sori ba dee mm-hmm. ay nit ñoo janu samay bagage ba indil ma ko fii kon nag waa waa tëngee bëgg nañ sama nijaay Cheikh Bara te nag ndeyloo yaayam dama ko naan wax naan maam jaara gënul ndeyloo ndax maam jaara dafa ga xar gaalam tàngale kafe ndeyloo dinaan jaay am waxam jëndale sa maam ndawal te booba am na ko ngeen bëgg lu ko neex ndax nee na booba lii la bëgg lool Cheikh Bara mm. kon nag na la wóor ne maam jaara gënul ndeyloo kon nag yàlla na yàlla taxawu ko man maa di jarbaatam jógee ngumba ma ko dégg ba léegi guddeeg ba ci damay jooy mm. ndax am lu ma metti waaye nag Serigne Bamba amoon na nag ni nga waxoon rek noonu la kon nag yàlla na lépp boyam ñi ngi ñi ngi bu baax nag mu mel ni euh, li mag ma doon wax ne boo amee kilifa danga koy sakkanal nee na mi ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di leen sant di leen gërëm nee di nuyu waa kër sëriñ Baara yi ndax nee na sëriñ Seydil Maxtaar sëriñ Abdul Aziz Baara moo doon xalifaam sëriñ Abdul moo doon xalifaam te sëriñ Abdul Aziz Baara mooma kati mii daan na togg di ko taajal. kati mii daan na togg di ko taajal. lu sax ci waa kër sëñ Abdou Aziz Baara. lu sax ci waa kër sëriñ Abdou Aziz Baara. dañuy sosu ci kër ga. dañuy sosu ca kër ga. ñuy togg. ñuy togg. di leen bernde. di leen bernde. di leen teral. di leen teral. kati yaru ci loolu. kati yaru ci loolu. lii ngeen koy sante. nee na lii nu koy sante. di ko ci gërëm di ko ci gërëm. daf cee yaru. nee na daf cee yaru. yaru ci séddale. dafa yaru ci séddale. yaru ci teral kilifa. yaru ci teral kilifa. yaru ci teral mag. yaru ci teral ci àddina. yaru ci àddina. kon nag ñuy ñaan yàlla. toogaayam bi toogaayam bi. yàlla na la fi yàlla saxal. amiin di mi ngi sant bu baax Cheikh Baara. ndax Cheikh Baara la. ndax Cheikh Baara kat nit la. nit ku nitalaat nag. àddina na àddina. bu la ci yàlla tegee. bu ci yàlla tegee ay nattu. da nga koy xam. ku dem Màkka. ku dem Màkka. xam ne gën gi xam ne Seydunaa naa ngën gi mbindeef. Màkka la juddoo. Màkka la juddoo. mujj Medine. mujj Medine. te ay bokkam. te ay bokkam. ak ña ko sës ci moom ña ñoo ko ko yóbbee ko ko yóbbee. ba mu dem toog Medine. ba mu dem toog Medine. la ca ëppati. la ca ëppati nag. sëriñ Touba mi ñu sëriñ Touba mii nu yaakaar. ñaata at la def àll. ñaata at na def ci àll bi juróom-ñaari at ci àll bi juróom-ñaari weer juróom-ñaari weer juróom-ñaari saa kon nag natt bu ñëw rek kon nag natt bu ñëw kuy nit kuy nit da ko jël teg da nga jël foofu te nit rek am nattu te nit rek kay amum nattu nag ku nitee di ko ku nitee di doo am nattu wallaay doo am nattu doo am na doo am nattu nit njaay nit njaay nit coy nit coy mooy am nattu mooy amum nattu kon nag lu dikk kon nag lu dikk na nga doon gor. na nga doon gor. doon nit. doon nit. muñ ko. muñ ko. dékku ko. dékku ko. ba mu paase. ba mu paase. kuy def lu yëg si. kuy def lu yëg si. nga pat pati. nga pat pati. wala nga xam noo ba ñu feeñ ci yow. wala nga am noo mel ba mu feeñ ci yow. booba doo nit nee na booba doo nit. bis bii. bis bii. ñu ñaan ci yàlla. ñu ngi ñaan ci yàlla. li ñu ñaan ci soxna se euh, Ndeye Mati lay mii. li ñu ñaan ci soxna Mati lay mii. yàlla na ko fekke. yàlla fa fekke. kati. nee na soxna Kati. li nga fiy xaar. nee na li nga fiy xaar. yàlla na la Sidi fay. yàlla na Sidi fay. Sidi Maxtaar mii Sidi Maxtaar fay yàlla na la ko fay. gor nga gor nga. jullit nga jullit nga. te nga te yaaram nga. ndax nit. ndax nit. bu dul fàtte te bis bu di ko defal. te bis bu ne mu di ko defal. nit la nee na kon nit la. Kati as gor nga. yaa xam démb. yaa xam démb. yaa xam tey yaa xam tey. bu wax jooju yeggee bu wax jooju yeggee. maa ngi sant maam saar ma toog. mi ngi sant maam saar ma lay toog. maam Sarr ma lay toog. maam Sarr ma lay toog. maa ngi koy sant di ko gërëm. nee na mi ngi koy sant di ko gërëm. di ko ñaanal. di ko ñaanal. yàlla na gudd fan. yàlla na gudd fan. toogaayam bee. toogaayam bee. du toogaayu gàcce. ne du toogaayu gàcce. toogaay bu rafet la du toogaay bu rafet la. ndax nit. ndax nit day doo xaar ba mu teew. doo xaar ba mu teew. nga soog a teew. nga soog a teew. da ngay teew ba mu méttee. da ngay teew ba mu méttee. ba mu naqaree nga taxaw nga taxaw. ba léegi jógoo ba léegi jógoo fi. yàlla na leen fi yàlla bàyyi na leen fi yàlla bàyyi. ah di sant it. di sant it nag. dellu di sant. dellu di sant. waa kër Cheikh Baara Ndiaye yëpp. waa kër Cheikh Baara Ndiaye yëpp. keroog bu ñu toogee di wax naan njare njare yi. ne keroog bu ñu toogee di wax naan njare njare yi. njare njare yi ndax ñun sunu maam njare wàqe dëkk. mu ne leen njare njare yi caroon bokk ndax ñun sunu maam kat njare wàqe la dëkk. njaamur njaamur boo ko xamee boo ko xamee xam ni njare njare. njaamur njaamur boo ko xamee rek da ngay xam ne njare njare biir la ngeen ñaan kon ngeen ñaan. li ñu fi si nisar. li ñu fi nisar. ak li ñu yéene. ak li ñu yéene. yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla àggale. lii moom du dara. lii du dara. àddina kese la te ku baax rek te ku baax rek di nga jaar ci lii Cheikh Bara lii du gàcce Cheikh Bara lii du gàcceem du naqaram du naqaram du tiisam du tiisam lu yàlla tudd lu yàlla tudd rek la te il faut mu am te il faut mu am ci des nag li ci des muñ muñ rek ak dal ak dal ak ak ak ñu leen di fàttali rek ñu eh, ci kër Cheikh ki nga di eh, ñu ngi taxawal nag ki nga xamante ne Cheikh sëñ Ahmadou Mbacké tey eh, ñu ko seen ko laaj rek ci ci bi sëñ bi lan bi ci bi nga daal di ci taxaw bi di bu baax ci dogal yi nga dogal ci Cheikh ndax it xëy na nii moo gën ndax yàlla lu mu def rek moo gën beneen bi sax suñu teewaay fii mooy teewaayu mbokk teewaayu xarit teewaayu lépp rek ci moom ndax ñu nag moom du tey daal ñun ñëpp boolewuñu ak bokk ñu boole muy def bu xewu jàmm amee ñu teew bu beneen xew amee ñu teew tey jii di xew jàmm ñu doon tudd suñu doom macha allah tudd nañ ko ba noppi ñu ngi sant bu baax a baax mbooloo mi fi teewoon yëpp tey macha allah bu fi nekkoon sax mbooloo mi mënut sant nañ ñi teew ñëpp ci seen teewaay bu rafet ndax buñ bu fi masaan nekk nii lañ fiy teewee kon ñun ñëpp ñëw nañ kon bu nekkee ci ay jafe-jafe bu nekkul ci ay jafe-jafe ñoo ci kër gi kon ñu ngi sant bu baax a baax waaw moom mention spéciale moom dañ koy sant di ko ñaanal baax moom femme brave la moom jigéen ju mën góor waaw te itam lu jiitu sëñ bi di fi nekk it da nga xam ne kii ku demal bàyyi kër mu seera kon loolu nag yàlla ko dogal tey jii mu demee nii waaye ñoom ñu ngi koy sant ci taxawaayam di ko ñaanal yàlla di ñaanal njaboot gi barkeel yàgg nañ ko koo ñaanal mais dañ koy fedd di koy ñaanal waaw Cheikh Bara nag moom kenn amul payam waaw moom moom moom tam dañ koy ñaanal yàlla natt bi woyof toy ci moom te woyof na toy ci moom ndax xam-xam ak état d'esprit am maanaam lii du dara ci moom xëy na ñun lay wéetal ak ak ak niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko tàmmee woon a gis waaye moom li ma mën a waat ci yàlla mooy fa mu nekk ñun bu ñu ko fi seetee bu ñëwee da nga yeesa yeesa yow moo lay mujjee di la kon moom fa mu nekk du problème ci ci ci moom. kon allah nag wax dëgg yàlla macha allah xëy na maanaam euh, koo xam dafa amee jàngoro toujours mën na bañ a nekk en en bon bonne mais nag am na noo xam boo ko fekkee di nga di sant yàlla ci am na xam boo ko fekkee woon waaw kon ni ñu ko fekkee ne dal na dal na suñu xel waaye itam ñi ngi ñaan état bu Sénégal lu gaaw ci bàyyi ko mu delluwaat si ay bokkam mu def ko ndax bu du dara tamit cheikh bi maanaam état d'esprit mayewu ko kon ñu ñaan état bu Sénégal mbooleem luñ koy toppee ñu xam ne moom day taqewu ci laalewu ci ndax moom day ci njub rek lañ ko yare dëkk bee ñu yaroo kenn dafa yaroo du jubadi waaw ay kilifaam tamit yi ko yar tamit nuyul lañ ko yare mooy mbaax ak njub kon état bu Sénégal ñu ngi koy ñaan yàlla ñu di ko ñaanal di ko ñaan président Macky Sall ak ministre de ak mboolem koo xam taqe nga ci yoon ñu bàyyi Cheikh Bara mu dellu ci këram loolu la ñu ñaan ko macha allah liñ ko tuubaal ndax jàpp nga ni tey euh, ci sa xel moom moo ko def. déedéet jàpp ma ko parce que ñun ñoo bokk éducation ñun ñëpp ñun Touba lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ jàng ak fa lañ defee lépp boobu déedéet amul boobu ñun dañuy dañ dañ dañ koy dañuy di ñaan daal rek moom lépp lu mu teg ci kawam rek mm-hmm. wala lépp luñ luñ ko luñ ko tuumaale ñu teg mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf jaa ngeen